billahi min alsheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi zawi ridwani wattamkin wajal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa xalbi arshida barke borom tuuba bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yi touba tv asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu noo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo yeeg ziyaara yi saaxibul fadila alxalifatu acheikh mouhamadun al muntaqaa di ko ñaanal yàlla sunu borom yàggal ko fi te defal ko ak wér ba mu mottali yéeneem ak ay naalam ca lëggal xaadimu rasul waaye di ko ñaanal mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gi ak taalibe yi ak mbooleem jullit yi ak fépp foo xam ne fa lañ mën a nekk ci biir réew mi noo ngi nuyu bu baax a baax tey ziyaara nag eh, Serigne Malick Fall mi nga xam ne mooy xalifaab Cheikh Omar Fall mi nga xam ne incha allah tey ji jataay bi ñi ngi fas yéene waxtaan ci jëmm ju màgg jëmm ju tedd jëmm joo xam ne kenn la ci jàmbaar yi nga xam ne ñoo àndoon ak Cheikh Ahmadou Bamba te am ci ab cër muy Cheikh Omar Fall eh, nekk foofee nga xamante ne ji mooy dëkk bi nga xam ne mooy Touba Fall ci Saloum mu taxawu ko te incha allah dinañ ñëw ci spécial plateau fas ko yéene ànd ak ak njabootam fas ko yéene waxtaane xam ngeen ne ñu ngi ko ànd ak lenn ci njaboot gi ñu ngi ànd ak kilifa jataay bi sëñ Moustapha Fall moom itam muy kenn ci njaboot gi Euh, doon koo xam ne incha allah dinañ ànd ak moom ci jataay bi incha allah waaye noonu itam la ñuy ànd koo xam ne sunu xarit la sunu wëllëre la waaye borom xam-xam la muy Serigne Mouhamadou Ngari Fall. moom itam yaakaar naa mi ngeen jëmmam ci waxtaan wi am solo yi nga xam ne mi ngi koy def en même temps itam imam la noo ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar nu fas yéenee ànd jataay bi itam ak Serigne Babacar Fall moom itam muy kenn ci njaboot gi bokk ci gëstukat yi nu koy nuyu bu baax a baax di ko ziar waaye sëñ Mouhamad Seck Xasida incha allah mooy ubbi jataay bi ñu tàmbali ci waxtaan wi kon damay ñëw ci sëñ Moustapha bu ko defee ma jox ko mu nuyoog bokki téléspectateurs yi Touba TV yi nga xam ne ñoo ko doon seetaan euh, sëñ Babacar nuyoog sëñ Mouhamad bu ko defee sëñ Mouhamad ubbil ni jataay bi xasida sëñ Moustapha asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Serigne Mbaye ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di ziyaara sama rakk yi nga xam ne ñoom laa ànd ak jotaay bi di nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ziyaar di ñaan sunu borom def kéemaan ci aw fanam mu yàgg fi lool te ku ko ñu ànd ak moom liggéeyu Serigne Touba bi di ziyaare Serigne Malick mi nga xam ne mooy xalifa sëñ Omar Fall di xalifa Touba Fall ak mboolem waa Touba Fall gépp ñu ngi leen di ziar ngóor ak jigéen mag ak ndaw di ziare mboolem njaboot ak sëriñ Omar Fall gi te bu ma tuddee mboolem lu aju ci daayiratu saalihiina ñëpp dañ ciy dugg ñu ñaan yàlla jataay bi suñu borom may ñi ñu def ko ca anam yu ñu ko bëggee fii nag ñëw nañ fi ci waajal waajal gàmmuk Touba Fall ci ndigalal sëriñ Malick ak ci ndigalal jëwri ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf sëriñ Moustapha ak Malta ahsanta atqanta sëriñ Mouhamadou Ngari Fall al imam asalaamaaleykum waaleykum salaam sëriñ mbay Mbacke ñang jaaxal ñoo ngi lay nuyu di la ziyaara di ndokkeel ñi ñu bokkal plateau bi a Cheikh Moustapha Seydi Ababacar ak Seydi Mouhamad Seck xasida di jiital ci nuyoo bi xalifa général kullu murit a cheikh Mouhamadal Muntaqa di ñaan sunu borom sàmmal na ko te yàggal ko fi. di nuyu sunu xalifa bopp a Seydi El Hadj Malick Fall ibnu a cheikh Moustapha di xalifa Touba Fall di ñaan sunu borom mu sàmm ko te yàggal ko fi. di nuyu mboolem ñuy teewlu jotaay bi sëñ Mbay Mbàkke nu ñëw fii ci ndigalal Al Hadj Malick xalifa Cheikh Omar Fall ngir. jotaay bu tedd bi nga xam ne yàgg nañ koo def di ko defal sunu maam Seydi Omar Fall ngir tawféex yu màgg yaa ko yàlla defaloon ndax dundam gi lépp ay misaal la dundam gi yëpp ay tem la dundam gi yëpp lu ñu war a roy la ba tax at mu jot ñi di fi teew di ci jooyal lenn ci dundam gi di ko fàttaliku di ci roy tabaarakallaahu ba déwén nag jàmm jërëjëf sëriñ Mouhamadou Ngari Fall tabaarakallaahu ak malta ahsanta atqanta sëñ Ababacar asalaamualeykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Mbaye ñang ñu ngi lay nuyu. di la ziar bu baax a baax. di la jox sa wàccuwaay di nuyoo ñu bokk ak plateau bi sëriñ Mouhamadul Moustapha. sëriñ Mouhamad Ngari ak sëriñ Mouhamad Seck jànkatu xasida di nuyu mbokk yu ñuy seetaan si télévision bu mag bii di Touba rawatina ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaane si Touba Fall di si jiital xalifa ba di Cheikh maalik Fall di ko ñaanal suñu boroom kàttanal ko may ko ay ndam si liggéeyub maamam bi noonu la ñuy nuyoo mbooleem ñi nga xam ne ñoo aju si daayiratu saalihina bu Touba Fall ku nekk fekk nañ la fa nga toog ñu jox la suñu loxoy xol na la asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ñaan yàlla suñu borom subhaanahu wa taala Cheikh Mamadul Muntaxal Bachir ibnu seexul xadim suñu borom yokk fanam wéral ay cëram ba lépp loo xam ne yéene na ko liggéeyal sëriñ Touba suñu borom kàttanal ko ba mu àggali ko si si jàmm incha allah ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar wasalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Ababacar nuyoo bi sell na rafet na damay ñëw ci sëñ Mouhamed bu ko defee mu leemul nu jataay bi ci ubbeeb nuyoob jàngkatu xasida bu ko defee nu mën a tabbi ci waxtaan wi nag mu bachara incha allah sëñ Mouhamed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 للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخراء وإني أحمد يهينني على سواء سمد بجاه خير خلق نحم الجيد أرسل خير العالمين أحد نعم الإله الأكرم الموحد dan wa Sëñ Tuubaa jërëjëf sëñ Mouhamed dinañ ñëwaat ci yow léegi incha allah ci nu mu gën a yaatoo njàng mi neex na lool am na solo tabarakallah barakallah mbokk yi comme niñ leen ko waxee woon léegi nag tey nag ñu ngi fas yéene waxtaanee nitu yàlla ñu ngi fas yéene waxtaane góor yàlla ñu ngi fas yéene waxtaane kenn koo xam ne ci boroom cër yi la bokk ci boroom jagle yi la bokk koo xam ne am na tawféex yi bokk ci ñi nga xam ne ñoo fekkan Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasul jamono waaye am tawféexi dem wuy ji Sëñ Tuuba ànd ak moom mission boobu nga xam ne Sëñ Tuuba ngi ko doon dox ci ndigalal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rinsiit ko am ci ndam ci ndigalal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëmm ju màgg ju tedd jooju nag mooy kan mooy Cheikh Omar Fall bu Saloum moom lañ fa yéene waxtaane tey dinañ ci indi yu am solo yoo xamante ne ji dina euh, xamal ñi nga xam ne ñooy déglu ñëpp ci ne boromub cër la woon waaye aalim la woon waaye aabid la woon waaye warin la woon loolu duma ci xuus damay ñëw ci al imam sëriñ Mouhamadou Ngari Fall su ko defee mel ni sëñ Mouhamed day mel ni nitug yàlla boo koy waxtaanee faw nga taarixal ko du ñàkk ñu laaj la euh, Cheikh Omar Fall fan la feeña jamono ci yan kilifa yu baax la ko yàlla jaarale ñan ñoo taxaw am njàngam akub yaram su ko defee incha allah ma door ñëw ci sëñ Ababacar eh, bu ko defee sëñ Moustapha itam dinañ ci ñëw moom sax moo war a ubbi jataay bi waaye eh, lépp benn la rek bu ko defee sëñ Mouhamad nga ñëwal ñu ci laaj yooyu ñu door a ci yeneen yi incha allah. jërëjëf sëriñ Mbay Mbàkke laaj nga ci ku tedd laaj nga ci nituk yàlla. koo xam ne waxtaanee ko mooy waxtaane lislaam waxtaanee ko mooy waxtaane ak mbaax waaye waxtaanee ko mooy waxtaanee alxuraan ci ak mbaaxam dégg nga li borom béyit bi waxoon waxtaane yàlla ki gaayam yiw wu nit mos am xamal na kat ca la tukkee yow murit bi xamal waxtaane duniyaa ki gaayam mbon gu nit mos am xamal ne kat ci la tukkee yow murit bi xamal hmm. kon waxtaanee Cheikh Omar Fall ci guddi gu mag gi ñu dëgmal hmm. di guddi goo xam ne hmm. li ci suñ Tuubaa wax doyoon na sëkk kenn ku ne def ci sa yitte ndax bi bindee ne mawliduhu muazzamun mubaarakun muxtaramun taazimuhu yanxatimu ala zawi taqaddumi ci la ñëpp waroon a jóg nee na màggal gën ak jamono alayhi wasalaam lu ñuy màggal la waaye lu barke la luñ wormaal la naka jekk nee na waxuma sax màggal gi waaye wormaal gi yooyu waaye ña jiitoon dañoo jàppoon ne màggal ko dafa war mhm. kon loolu boo xoolee ci mbind mag ñëpp loolu lañ bind ndax boo demee ci alxaaji muhammad alxalifa maam xalifa ñes dafa wax ne ala sururika fil ayaadi qatibatan yawmun bihi wulidal muxtaaru fil xormi loolu maam xalifa wax nee na mbégte yi gën a kawe feet yi gën a kawe xaatibatan mboole seen mooy yawmun bihi wulidal muxtaaru fil xormi mooy bis bi alayhi salaatu wasalaam ganay jamono waaye soo jàllee tuuti si Alxaaj Maalik loolu la wax daf ne fa mawliduhu bihi sharafun wa xayrun fa fi taadimi injaaxu sujuni kon euh, mboolem suñ mag ñi loolu mooy seen taxawaay ci gën a jamono alayhi salaatu waaye boo demee ci Alxaaj Omar Ndaw nitu yàlla ku mag dafa ne wattafaqal xurru turran am na anna mawlidahu xayrul layaali nas itlaaqi nassihimu kon ñoom ñëpp loolu lañ waaye année bi boo ko xoolee muy 365 jours juróom-ñetti guddi ñoo ci gën juróom-ñetti guddi yooyee gën ci guddi ga ca gën mooy guddi gi alayhi salaatu salaam ganay jamono ndax juróom-ñetti guddi yi gën ci année bi bi si jiitu mooy guddi gën a jamono alayhi salaatu salaam hmm. beneen ba mooy guddi laylatul qadri ñetteel bu mooy guddik al isra wal mi'raj ñeenteel bu mooy guddik arafa juróomeel ba mooy guddik euh, guddik nisfu saaban juróom benneel bu mooy guddik jumaa bi sopp mooy guddik laylatul adha mooy feetu tabaski waaye juróom-ñetteel ba mooy guddik feetu korite kon yooyee nga xam ne ñoo gën ci 365 guddi yi ba ca gën mooy guddi gi alayhi salaatu salaam gane jamono kon ëpp naa ñàkk màggal hmm. buñ amee tawféexi am jàmbaar ju màgg jàmbaar ju tedd liggéeyal nitu yàlla ba jeex ca tàkk yàlla dogal mu am taw feexi am ndigalal gàmm kon ñun loolu fu ñu toll suñ mbégte da cee war a gën a yokk fu ñu mbégte da cee war a gën a kawe Cheikh Omar Fall mi nga xam ne moo tax nu ñëw fi nag waxtaanee ko nee naa mooy waxtaanee alxuraan ndax mbooleem gaay yàlla yi buñ dee wut yàlla mën naa am danañ wër yoon yu bari waaye bu ñu demee ba daj alxuraan yoon wu ñu mas a jàpp dañ ko daan bàyyi te jàpp ci alxuraan moo tax nga dégg suñu Tuubaa ne ijaal bi jaahil muntaqa xayaati riayat alquraani si ayati yàlla maa ngi lay ñaan nga def ci dara darajaay al muntaqa bokk ci turu alayhi salaatu wasalaam nga def looy def xayaati sama dund riayat alquraani muy sàmm alquran zil ayati mi borom aaya yi wala zil ayati mi borom kéemtaan yi mm-hmm. moo tax Cheikh Amar Fall bi mu gënee jamono ci diggante waajur yu tedd niñ ko baaxoo def ñaare booy waxtaanee nit di nga ko xamle ngir dañuy wax ne boo dee bind téere wala ngay waxtaan nitug yàlla xamle mooy kan dina tax kii déglu xam ne ah kii kat comme fii la bokk nii la war a mën a mel looloo tax waaye yàgg na noo wax mooy kan ak fan la jógee wala falkat bi def ne mbër maa nga feeñe kolobaan fa saalum ca tatrasin diggante ñaari yaaram baayam ba sëriñ madun mu siiwe maam góor yaayam ja faama jaxate moo tedd kon baayam mooy suñ maam góor faal yaayam di soxna faama jaxate waaye bi yàlla dogalee mu toll fi doomu daara yëpp di toll fi doomu soxna yi di toll ci war a dem daara wooy juróomu góor di sëñ madun faal daf ko yóbbu daara bi mu demee moom moom sax moo ko jàngal suñ maam góor wooy juróom moo ko jàngal euh, ndax wooy juróom ab jàngalekat la woon Euh, moo ko dalal Qur'an ba xëy kaangal ko jàngal ko xam-xamit ba xëy fóoril ko waaye bi yàlla dogalee mu jàngal ko alquran bi mokkal mu jàngal ko xam-xam ba mu am xam-xam mu ne ko mokkal nga am nga xam-xamu sharia may naa la wirda teg la ci tarixa Sëñ Omar Fall yoon we woy juróom teg ko fa da cee tegu nag nekk ca jeexal ci dundam gi yëpp fonkam alquran nu la neex nga waxtaanee ca mm-hmm. doy na sëkk rek fu mu nekk ay daara ñoo koy wër fu mas a nekk ay niti alquran ñoo koy wër waaye ñi yëngu ci alquran lu mu mas a am defal na leen ko relation bu mën a am ak ñoom it dana ko dina ko jël doy na ci sëkk rek ku ñuy wax sëriñ Malle Daraame bokkoon ci ñi ko daan jàngaleel alquran yàlla dafa dogal bi muy jàngale di jàngale ba jëmmi jamono wuy juróom wàcc muy sëñ sàmbaraxi siidi di Daraame bi mu wàcceeb liggéey bokk yi def délégation ñëw ci Cheikh Omar ne ko waxtaan ak moom ne ko way juróom wàcc na te nit su dee wut doom mooy su fi nekkul muutu ko fi ndax al waladu euh, istimraaru wujudi abihi buñ dee wut doom mooy olof sax daf ne ku am doom deewoo bi mu waxtaanee ñoom Cheikh Omar Fall neen ah kii de nitug alxuraan la te nitug alxuraan lu ma man ci moom danaa ko def bu ma soñoon du ma teexal koog moom mukk waaye lii ngeen ma wax jar na ma bàyyi ko mu ànd ak yéen bi yàlla dogalee mu bàyyi ko mu ànd ak ñoom ngir fonk alxuraan ak ngir fonk nitu alxuraan Cheikh Omar bis bu set daan tibb ndabal ñam ñu di ko yóbbul sëñ Malle Dramé ca sa ca kër Sàmbaraxi te diggante bi soree na lool loolu dem na sax ba tamxarit jot euh, yàlla ji xam nga saalum naka jekk da daan xaw a lëndëm ba léegi sax leeragut rawat na boo ko xoolee 80 ci gannaaw bi mu leen demee tamxarit jot mu xam ne teraanga ji mu daan defal nit alxuraan wërta dakk mukk mu ne ku ma yóbbul reer yi am turandooram ñu tuddee woon ko joxoon ko ko muy Omar Kata Sall ne ko sëriñ bi bàyyil ma yóbbu ko yàlla dogal ñu jox ko reer ba waaye lii wane ne alxuraan rek mat a liggéeyal te alxuraan ku mu yëkkati dootoo wàcc Omar Kata Sall bi mu jëlee reer ba day def ba mu génnee dëkk ba rek mu mel ne dafa am làmp bu ko tiim di ko leeral su demee ba dugg ab dëkk du gisat lamp ba bu génnaatee làmp ba toppaat ko noonu la def dem ba ñëw nga xam ne Cheikh Omar Fall fonkam nitu alxuraan noonu la ci demee waaye yému ca daraan ñaan yàlla mu may ko njabootuk alxuraan loolu doy na ci firnde euh, ku ñuy wax jama dafa amoon doomam ju ñu tuddee Faatu Daam Juuf Faatu Daam Juuf yàlla dafa dogal nu joxoon ko ku ñuy wax Amadou Diop bi yàlla dogalee mu nekk fa jamagay di woy juróom gane ji Amadou Diop bi mu ñëwee au lieu que Amadou Diop toog ci kaw waaye dafa wàcc toog ci suuf jamagay nag borom cër la woon waaye nag ku nangu woon a jël ay responsabilité am la bi ngan gi jeexee mu ñaan ko ne ko nag faat daam mii ma la joxoon damaa bëgg nga delloo ma ka ma ànd ak moom ndax kii kama koy wëral mooy koo xam ne bu toogee ci kaw jamagay day toog ci suuf mooy borom cër la rek bi yàlla dogalee mu def loolee nit ñi nag euh, lu xew rek coow la jóg ñaan kii dafa dof lii niñ koy defee sa doom ji nekk ci sëy bi yàlla dogalee mu dugg ci loxoy Cheikh Omar Fall euh, yàlla dogal fekk ñaan gi Cheikh Omar Fall daan ñaan ci njabootu alxuraan ndekete ci faat Dame juuf mii la war a sottee yàlla dogal mu am ci tout tànk tuddee ko alaaj Serigne Fall muy Cheikh Ahmadou Bamba suñ tubaale ko tuddee waaye ñu koy wooyee Serigne yàlla dogal bi mu tollee ci dal jàng ngir wan la cër bi Cheikh Omar amoon ci alxuraan ñu yóbbu ko ci daara yi man kiñ ma tuddee daaram lañ ko yóbbee Mouhamad Ngaari Badiane muy jàng di jàng ba jafe-jafe bët dal ko fa ñu woo Cheikh Omar xam naa ngir bëgg mu indi ko faj kook yu demee noonu Cheikh Omar war fas dem bi mu demee xool ko ah, daldi ñaan tafli ko ci bët yi ne gees Mouhamad Ngaari ne ko sama doom ji alquran rek laa bëgg ci moom alquran rek laay sàkku ci moom na toog jàng su yàlla dogalee mu am alquran baax na bu yàlla dogalee mu gumba ñu jox ko yet mu dem yelwaani gënul ay moromam yi yelwaan waaye mibit moomu mu amoon ci yàlla da ko cee fekk ci alaay Sëriñ Fall moomee mokkal na alquran ba yàlla dogal taalub jàng bu nekkoon ci tund wa bu ko déggee dana fa dem bokk ca ña man sàkku fa ngërëmal borom daara ja soo ko demaat ci faneen mhm. doy na firnde ci loolee am na daara ju mos a dem ñu koy wax daara alaaji biraan jaw nekk ca ñàpp balla ndax moom fu mos a dem siiwee nañ ne mooy mooy mooy man ci alxuraan du bokk sax ña fa man ci alxuraan waaye moo fay man ci alxuraan nga xam dana dem ba sëriñ ba seere la ko ne ko yow daal dëgg-dëgg mënoo fay yokkootu ci alxuraan am nga ngërëm kaay ma yewi la nga dem alaaji biraan jaw wax nañ ne ba mu fa demee ni ko Omar Kat Fall di nettalee defaan seen concours ñuy def ci boole alxuraan ti mën a bind moom mu daan seetle mbind lool musta am njuumte ci bind bis wax nañ ne sax bi mu bindee àlliwa ji indil alaaji Biraan Jaw dafa jël xalimba bëgg am baat bu muy defar Omar Kata ne ah, alaaji Sëriñ Fall ne cëfit àlliwa ji ne ko bul yàq sama mbind mi sëriñ bi ba mu demee xool ab téere mu mel ni li mu jàpp noon la waaye bi mu xoolee xoolaat dafa gis ne ndekete moom moo juum ci mbind mi waaye bis bi mu bindee jox ko Omar Kata tey na ko ba ko alaay sëriñ Fall joxe àlluwa ji seetlu na ne bàyyi na ci ab sadd bi sëriñ bi toppee àlluwa ji topp àlluwa ji ba gis sadd daal di ne ah sama waa ji tey dana daanu de nam def mooy dafa yéyi xali mbëgg ba mu mokk mu riib ko ci daaj ba mu taq mu ne tareet ci àlluwa ji tareet ci àlluwa ji ne ko neewoon naa la bala nga fay jógee daanal daan nga xam ne kon loolu day wane ne ni meloon ci alxuraan mébét mi Cheikh Omar Fall amoon ci moom ci alxuraan yàlla fekk si na ko ci ak yeneen yu baree bari ca daaree alaaji euh, baabu maram ja hmm. nga xam ne dafa nekk alaaji baab maram jàpp ko lool fonk ko lool ba dafa dawee jàng ab bis xam nga lu tax mu dawee fa jàng ndax dafa demoon ba sëriñ bi fonk ko fonk goo xam ne moom ak ku ñuy wax sëñ mbay dramé talaata ju jot kii daraan tari xaaj kaw bi di baagante diggante jàkka ji ak kër sëriñ bi kii di tari xaaj suuf bi baagante diggante jàkka ji ak kër sëriñ bi ñu di ko def di ko def waaye sëriñ bi di leen teel teraanga joo xam ne bis bu set da ñu mujj ñoom daw jàng ndax nee nañ lim xam liñ xam ci daara mooy day naqadi waaye daara wërta neex ba toll ci bis bu seen ñu lay rayal gàtt nga xam ne ñoom cër boobu la ñu amoon ci alxuraan te Cheikh Omar la ko yàlla jox tabarakallah jërëjëf sëriñ Mamadou Ngari Fall yaakaar naa loolu am na solo bu baax gën noo jàngalaat jëmm ju tedd jooju di Cheikh Omar euh, Fall euh, ci jagle yi nga xam ne am na ko waaye itam wayjur yu baax yu tedd yi nga xam ne am nga ko am na ko waaye nag nga ñëwal nu itam ci relation bi nga xam ne am na ko ak alxuraanul karim waaye itam jagle yi nga xam ne am na ko ci te tabaarakalla loolu am na solo bu baax dinañ ñëwaat ci yow léegi ci nu mu gën a yaatoo damay ñëw ci sëñ Babacar sëñ Babacar dégg nga fii sëñ Mouhamed leeral nañu càllale gi am na lu ci leeral way yeeg njàng meeg yu ci baree baree bari waaye dañuy wax ne euh, Cheikh Mouhamed Lamine Gueye Firdawsi daa wax ne doomi soxna bu jàngu tilim bu sañcu réer bu liggéeyut loof bu jaxasoog buur yàqu kon boo ñu bëgg nañ ñëwal ci liggéeyu Cheikh Omar Fall ak ay sañcam ak jikko yu rafet yi nga xamante ne ji am na ko ba mën a dajale mbooloo mi nga xam ne ñoom la àndaloon ba am cër bu rëy boobu nga xam ne am na ko ci jëmm ju tedd jooju Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul sëñ Babacar. jërëjëf sëñ Mbaye. Hmm. jërëjëf Cheikh Mamadou Ngari. Hmm. am na solo lool tey dañuy waxtaanee góor yàlla. Hmm. góor yàlla gu mat góor yàlla mais Cheikh Omar Fall. te góor yàlla nag saa yu koy waxtaanee rek. xaalim ba waxoon wa man araxa waliyan fa ka annama ahyaaw saa yu ñuy waxtaanee góor yàlla dafa mel ni dañ kaa fekk si bàmmeelam génne ko andiwaat ko si penc mi kon tey Cheikh Omar Fall dana yeesaat si xol yi ñu xamutoon Cheikh Omar Fall danañ xam tey kan mooy Cheikh Omar Fall moo tax woykat ba waxoon ne yaaram yenee ku taarixal waliyu mel na ni dundal nga ko ngir aliyu waaye comme ni ko Cheikh Mohamed Ngaari waxee Cheikh Omar Fall juddoo si ay waajur yu tedd di Serigne Madoum Fall ñu gën kaa xamee Serigne Maam Góor mu nekkoon koo xam ne jàngalekatu alxuraan la woon nekkoon boroom xam-xam nekkoon koo xam ne dafa nekkoon mu xaddam si tariqatu ya kooku mooy waajur Cheikh Omar te nit nag environnement moo koy déterminer maanaam alxuraan daf ñu jàngal ne wal baladu tayyibu yaxruju nabatahu bi isni rabbi walladi xabusa laa yaxruju illa nakida kadalika nusarrifu al ayati li xawmi yashkuruun alquran ne environnement mooy déterminer nit nit ki bu juddoo si famille bu baax pour mu nekk nit ku baax dafay dafay yomb hmm. waaye nit ki bu juddoo si famille boo xam ne dañoo mën alquran pour mu nekk nitu alquran dafay yomb hmm. nit ki bu juddoo si famille boo xam ne dañoo am xam-xam pour mu nekk nitu xam-xam dafay yomb hmm. waaye noonu tamit safaan ba nit ki bu juddoo si famille boo xam ne ay mbër lañ war ay fecckat lañ noonu lay demee kon Cheikh yàlla daf ko tawfiixaloon mu am ay waajur yu baax a baax mi seex sëriñ Madoum Fall ak yaayam ji di soxna Fama Badiane waaye mooy lu saaxir ba waxoon ne wa kullu xarnin naajimin fii thamanin fa huwa sabihu samanin fiihi bada képp koo gis mu feeñ si jamono dafay jël si jikkooy jamono joj moo tax Seex Omar Fall ay waajuram dañoo teel a def si moom ay jikko yu rafet mu nekk bokk si ñi nga xam ne lu ñu tuddee makaarimul axlaax dafa nekk si moom makaarimul axlaax nag buñ koy jàngale dañ koy tënk si dañ koy tënk si ñeent mooy ki nga xam ne daf la tooñ nga mën a fayu baal ko ak ki nga xam ne daf la dagg nga mën kaa dagg ni moom nga jokk ko ak ki nga xam ne daf lay xañ nga mën kaa xañ waaye nga jox ko kon jikko yooyu yu tedd yooyu moo nekkoon si Cheikh Omar Fall waaye mu nekkoon koo xam ne comme nu ko Cheikh Mohamed ngaa waxee ku bëggoon alxuraan la nettali na sa lu bëree bëri bëri te fu mu nekk rek day fexe daar am fa ndax lu saahir bi waxoon rek kaana waaliduhu muallim alqurani alfarisi muxadama tijaani alquran jooju nga xam ne bëggoon na ko waajuram bi mook ko si yar fexe ba jukko yu baax yëpp yi nga xam ne nit ñu baax ñi dañ koy yor jukko yooyu nekk si moom moom Cheikh Omar Fall te it sikkut ne nag sikkut ne ñu gën si nit ñi mooy ñi nga xam ne dañuy jàng alquran ba pare di ko jàngale mm-hmm. ndax yonente bi sallallahu alayhi wa dafa waxoon si benn hadis ne inna allaha wa malaikatuhu wa ahlu samawati wal aradina hatta namlatu fi hujriha wa hatta alhuudu fi bahri wa hatta alhuud la yusalluuna ala almuhallimi nnaasa alxayra yàlla suñu borom suñu borom si boppam ak ay malaayikaam ak mbooleem ki nga xam ne da nekk si kaw suuf ba si xorondong bi nga xam ne dafa nekk si biir paxam ba si jën wi nga xam ne dafa nekk si biir ndox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee nañ dañuy ñaanal ñi nga xam ne ñooy jàngal nit ñi fexe ba def ay jukko yu baax si ñoom. Cheikh Omar Fall nag nekkoon koo xam ne jukko yi dafa nekkoon si moom nekkoon na koo xam ne ku tabe woon waaye nekkoon koo xam ne ku mën a yar mbooloo la ku mën a dajale mbooloo la. loolu dañ ciy nettali Cheikh Mohamed Ngaari mi nettali ne ko Omar Kata moo ko nettali nee na am na si jamono am na benn waay boo xam ne daraan julli si jumaa ji chaque jour benn suur ñëwut. Cheikh Omar Fall dafa dox ba si moom mu ne ko ah tey de gisuma la mbaa du dara mu expliqué ko mu demee mu ne ko yow de ah sa teewaay si mbooloo mi dafa am solo lool. waa ji tamit xam boppam xam ne ne moom mii nekk te ñu ngi koy bàyyi xel. loolu dafay wane jëmm ji ak man a yar gu mën a yar ak man a yor mbooloo mu mën a yor ndax yombut. yor mbooloo yombut du ñëpp ko man waaye Cheikh Omar Fall suñu borom subhaanahu wa taala defaloon na ko jikko yooyu. kon Cheikh yàlla xéewalee woon. mën a jaamu yàlla waaye nekk koo xamante ni ay waajuram dañ kaa teel a yar si ay jikko yu baax lu mel ni bëgg kilifa. ku mel ni Serigne Touba nga xam ne kilifaam la woon Cheikh Omar dafa nekkoon koo xam ne dafa ko bëggoon lool. ba Serigne Touba ba mu ko joxee ndigalul gàmmu teewut daf ne ko yooni ziyaari nay mel ni xorondong moo tax sëñ maam sëñ Moussa nettali na ko sànq saa gàmmoo ba suba ga mboolem lu dajale si gàmmu gi daf koy dajale yóbbul ko sëriñ bi. kon nit ki boo bëggee nit da ngay faral di ko siyaare lu baree bëri ndax siyaare goo nga koy siyaare dana la yokk cofeel sa digganteeg moom Cheikh Omar Fall moo tax yooni siyaare moom daraan koy def ni xoronam nga xam ne jookaa lu sori sori teewut daraan fay jugee ànd ak rakam ja sëriñ Babacar Fall ñu ànd dem siyaare ji sëriñ Touba kon noonu la ko toppee ba sëriñ Touba jugee fi mu continuer di ko def Cheikh Mahamadul Moustapha waaye sëriñ Baba sëriñ Omar Fall nekkoon koo xam ne dafa yaroon ak njabootam tel lee naa yar si ak taalibe waaye tel lee naa yar si topp sëriñ bi waaye tel lee naa yar si yoonu murit ndax sëriñ Tuubaa dafa wax ne xulubu jumlati alladina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslimin xol yu na ma texe mooy xol yi nga xam ne ñoo ma topp man sëriñ Tuubaa kon moo tax Cheikh Omar Fall texe gum bëggaloon njabootam moo tax mu fexe teel a yar njabootam si bëgg sëriñ bi kon ay jikko si Amar Fall ñu toogee fi di ko wax duñ fi jógee waaye jikko la yoo xam ne mooy jikko yi nga xam ne moom la alquran jàngale mooy jikko yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mooy jikko yi nga xam ne moom la Serigne Touba yaree ay taalibeem yar si Cheikh Omar Fall Cheikh Omar Fall yar si ay njabootam ba tey ñu bam mu agsi sëti tabaarakallahu jërëjëf sëñ Babacar kàddu yi rafet na bu baax a baax am na solo euh, te lépp itam tegu na ci yar aku xam aku teey aku dal noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax xam naa dama bëggoon suñu Moustapha ubbi waaye moo ñuy tëjal incha allah euh, bu boobaa ginnaaw mooy kilifa gi mu xat mu jotaay bi lu ci dëngan rek mu jubbantiwaale ko damay dikkaat bu baax ki sëñ Mouhamad Ngari bala maa ñëw ci sëñ Mouhamad xasida yi sëñ Mouhamad ñëw nga ci feeñ jamono gi wax ci alxuraan ci lu bari Euh, sëñ Babacar leer leeral na lu baree bari ci jukko yi waaye day mel ni góor yàlla yi géej la ñuy doon yoo xam ne wala suy draku bil akwa bi tayyaaru loolu sëñ Tuubaa doon tagge yonent bi géej kenn mënu koo tangay kopp ba mu jeex kon boo nu doon ñëwaatal ci xam-xamam akuk tabam akuk wilaayaam ak dëkk yi mu sanc ak itam Touba Fall googu ndax dëkkub ay maamam la mu ñëw yeesal ko wala moo ko sanc ak ay réalisation ay injaazaat yi nga xam ne def na ko moom jëmm ju tedd jooju di Cheikh Omar macha allah jërëjëf sëriñ Mbaye Mbacke Cheikh Omar Fall géej la. côté goo ko jël rek man nga cee waxtaan ba doyal te du jeex ni ma ko defee ci diggam ak alquran. boo ko jëloon ci diggam mag ay waajuram noona nga cay mel. boo jëloon diggante sëriñ Omar Fall ak pas-pas doyoon na sëkk tem. boo ko jëloon diggam ak ay bokkam diggam ak jaamu yàlla diggam ak xedma boo ci jël rek doy na sëkk ab liggéey. waaye comme waxtu wi daa xat ñu njëkkante ko Cheikh Omar Fall Touba moo ko sancal boppam waaye laataa sanc gi bim nekkeek ay waajuram nangul ay juram lool topp leen ba waajuram yëg ne lum ko sant dana ko def ah juram nag dem na ba yàlla xamal ko ne ko sa doom jii di Omar Fall nga am ci moom yaakaar lool am na ku ma wàcce jamono muy mu représenté ma fi tudd Cheikh Ahmad Bamba soo bëggee li nga bëgg ci sa doom ji mu am da ko yebal mu dem ci Cheikh Ahmad ndax wax naa leen ne euh, alayhi salaatu wasalaam nee na fii nihaayati kulli sana yàlla day yebal koo xam ne man yu jaddidu laha diinaha mhm. Cheikh Ahmad Bamba nag yàlla dogal muy moom wooy juróom nag ci la ko woo fekk booba nee na ko mokkal nga am nga xam-xamub sharia may naa la wérda teg la ci tariqa ne ko te am nga saa ngërëm fobul may naa la ndigal nga fekki bamba sant naa la ba ko waajuram ne léegi daal dama gis ne leeru yàlla jolli na te ci amul bamba la jollee kon léegi euh, noonu la ko bër mbir bi saabalee ca yooya at la leeri bamba jolli bannam wasar ca ruuy gaaye julli leeruk sëriñ tuubaa ga daal di feeñu sëriñ omar ca mooma at la téeñu baayam ba woo ko xabaar ko ay mbir naa ko sëriñ bàmbaay ki saytu sa cër mooy faj sa xaajo zahiran wa baatinaa mooy yéwénal sa mbir dogal ba jiitu na bi ko wuy juróom woowee waxtaan ak moom ne ko damaa bëgg nga seeti Cheikh Ahmadou Bamba fekk booba Sëriñ Tuubaa ma nga gànnaar ca xoomaak xam nga Sëriñ Tuubaa bi mu nekk xoomaak comme 1907 la ñibbisi kon day mel ni diggante 6 ak 7 la Cheikh Ahmadou Cheikh Omar Fall nag ci la waaj tàgguwaat wuy juróom yeesalaat ndigal li takk nag war a seeti leel sampub yàlla boobee ñuy wax Acham Bamba bi mu demee giseek moom waxtaan ak moom ba noppi déllu siwaat Saalum bi mu ñëwee waxtaan ak juróom yàlla dogal Cheikh Ahmadou Bamba ñibbisi bi mu ñëwee ba Jurbel nag ca 1902 ci la Cheikh Omar Fall yeesalaat laxasaayam nag tàggu juróom yewwi ay soxnaam ne damay seeti euh, mbiram yàlla moo xam ne xawma kañ laa koy am kon du ma leen fi téye di leen lor ndax xaw ma ndax danaa gaaw a ñëw wala du ma gaaw a ñëw ci la yeewi waa kër gi yëpp yeewi donga ya daal di laxasaayo nag dem fekki Cheikh Ahmadou Bamba Jurbel bi mu demee Jurbel nag ci la daldi waxtaan ak Sëriñ Tuubaa yeesal ak jaayanteem wala mu jaayante ak Sëriñ des fa nekkoon nag jaamu ko tub yàlla naka jekk ndax wa kaana yaaqifu bi zaatil bayti min al xamiisi li sobaaxi sabti Cheikh Omar Fall naka jekk daa wutoon këram bu alxames jotaan mu dugg ca balaa génnaat aljuma daa maanaam samedi daa jot hmm. xam ne jaamu ko tu yàlla mag loon bi demee ci suñ tubaa jaayante ak moom suñ tubaa laaj ko nu seen famille demee mu ne ko sama waajur a fa ne mu laaj ko mu ne ko am naa fa ay mag ak rakk ñoo fa nekk di liggéeyal sama waajur ak man mii ak sama rakk jii di Seydi Ababacar Fall nga xam ne waajuram mi ngi ko teel a jox ca bu yàgg bi borom bayit bi dafa ne foofee la jël sëriñ Ababacar Fall jébbal magam sëriñ Omar borom àll mooy ca gént kay mm. ah, ah, sëriñ Madoun sax na fa door a génn dem gént kay foofa nag la jël sëriñ Babacar Fall jox ko magam Cheikh Omar Fall mu nekk ak moom dundam gépp muy ànd ak moom ba bi muy dem di jaayante sëriñ Tuubaa moom la àndal bi mu jaayante sëriñ Tuubaa nag mm. sëriñ Tuubaa waxtaan ak moom ba noppi ne ko nag demal toog déglu ma mm. bi mu demee it lam nekkee mooy di julli di naafila di wirda sëriñ Babacar Fall daan wuti ay xewal yu ñuy xewloo ba mu yàgg sëriñ Tuubaa woowaat ko ne ko Omar mu ne ko Mbàkke fekk booba Cheikh Omar Fall ab seex la woon laataa muy jébbalu ci Sëriñ Tuubaa kon naka jekk yàlla da ko bindaaleeg mu bokk ci borom cër yi mm. bi mu waxtaanee ak Sëriñ mu ne ko léegi da ngay dellu ca sa doon say waajur boo demee nga liggéeyal ma fa te yëg ne suñu la gërëmee gërëm naa la mm. nga xam ne kon lu waaye man a am bu xasee ñëw ci Sëriñ Tuubaa na yëg ne mu ngi soog a am tampon mm. waajuram ndeysaan yàlla dafa leeral ab xolom mu teeloon a xam demee foofee waxtaan ak moom Sëriñ Tuubaa joxaat ko ndigal mu dellusiwaat ci ron ay waajuram dafa takkuwaat nag laxasaayu te xam ne du waajuram lay gis waaye Sëriñ Tuubaa lay liggéeyal ci ron ay waajuram nga dégg bër mbay bi wax ne ca mooma at la Sëriñ Omar dem gànnaar fekk siriñ Tuubaa mi faw xa ay naar gànnaar la Bamba jàppe rooyi gaay yi yóbbu ca péey ba Rangaleen wilaaye gànnaar la la gànnaar la yu mag yi gànnaar la follee wuur yi sompi dag yi la follee wuur yi gindi dag yi gannaaw boobu nag bi ko Sëriñ Tuubaa joxe ndigal te borom bayit bi saabal ko ne Jurbel la fekki Bàmba daal koy jébbal jëmmam ja daam defar ko daal koy seexal Jurbel la jébbalee durus fa mbaar ya ànd ak murid ya xañ ko leen jaar-jaare foofee la sax di naafila wirda daam di ko yéege raw na def na fardu gannaaw ba nag bu mu dikkaatee ci ron way juróom mi sëñ maam góor Fall ñetti at la fa liggéey ni nga xam ne maam Cheikh Ibrahima Fall ñetti at la liggéey ci ron suñ Tuubaa mu wàcce ko Cheikh Omar Fall ñetti at la liggéey ci ron way juróom sëriñ Madun sëñ Madun bég lool ba bind ab leetar teg ci loxol Cheikh Omar ne ko boo demee ne suñ Tuubaa damaa mënta def ci yow li muy def ci ñëm gërëm waaye su ma ko mënoon kontaan naa kontaan gu day ni maay def ci yow li mu war a def cee yow waaye nag comme mënuma ko yóbbu leetar bi muy leetaru seede sama diggante ak yow bi mu demee suñ tubaa yër leetar ba kontaan lool xolom sedd lool ci la ko nag seexal daa ci la ko seexal daal dina ko nag léegi boole ko ci borom cër yi ndax fekk na naka jekk mu amoon waaye suñ tubaa lu yàlla di joxe tabaarkalaa ni ngeen koy waxee ci loxoom la koy jaarle kon loolu la Cheikh Omar Fall defoon gannaaw bi nga xam ne waaj na diggante gànnaar ak Sénégal sori na waaye pas-pas bu rëy ba ak yéene ju kawe ja moo taxoon mu jaral ko loolee lépp suñ baj bàkke jërëjëf sëriñ Mahamadou Ngari Fall yaakaar naa loolu am na solo bu baax a baax ñëw nga sax ci question boo xam ne maa ngi ko doon waaj mooy alaqaam digganteem ak Sëñ Tuba ak euh, mu bàyyaa muy jaayante ki nga xam ne jaayante na ak Sëñ Tuba waaye nga ñëw ci ñëwin wu rafet wu matale la kon bu ko defee eh, damay ñëwaat sëñ Babacar ñu jëkkanteeg waxtu wi li ci des bariwut bu ko sëñ Babacar yow dama bëgg nga dikkal ci digganteem ak sëriñ bi njaareem ba ci sababu gàmm gi nu ko sëñ bi joxee ak mbooloo mi nga xam ne moom la sëñ Babacar àndaloon di liggéey eh, di ñëw ci jëmm ju tedd jooju nga xam ne mooy Cheikhul Khadim alaaka diggante Cheikhul Khadim ak Cheikh Omar Fall. jërëjëf sëriñ Mbaye sëriñ Touba. Cheikh Omar Fall alaaxa bu ñu amoon mooy alaaxa taalibe ak sëriñam Cheikh Omar Fall sëriñ gënaloon ko ñëpp si àdduna bi ndax sëriñ Touba mooy sëriñam waaye comme nu ko Cheikh Mamadou Ngaari waxee pas-pas bu rey la Cheikh Omar Fall amoon ba tax mu jugee Saalum dem ba gànnaar fekk fa sëriñ bi jugee fa ba mu ñë ba mu 1907 côté yooyu la sëriñ bi ba mu jugee foofu 1912 mu dem Jurbel ba mu demee Jurbel Cheikh Omar Fall dafa takkuwaat dem fekk Serigne Touba Jurbel comme na ko Cheikh Mohamed Ngaari nekk nettalee diir bu mu nekk Jurbel yëpp moom Cheikh Omar Fall dafay nekk ci jàkka yi di jullee naafi la ba xëy bis Serigne Touba woo ko laaj ko njabootu baayam ne ko kan mooy sa baay mu ne ko sama baay mu ngi tudd Serigne madum Fall mu ne ko ana ay doomam mu ne ko man mii maay doomam ak Serigne Babacar Fall mii ma ànd ak ak Serigne Aliou ak Serigne Adama Fall ñin ñii ñooy ay njabootam mu ne ko sa baay lu muy liggéey mu ne ko katu jàngalekatu alxuraan la sëriñ bi ne ko da ngay dellu fa soron waajur nga liggéeyal ma fa bis bu gërëmee gërëm naa la kon nga gis ne ngërmaane sàkku sa waajur nu ko nu ko Serigne Touba fonkee ba tax mu jox Cheikh Omar Fall ndigal ne ko demal nga liggéeyal say waajur saa yu la gërëmee gërëm naa la Cheikh mhm. Omar Fall ñëw sax si ron ay waajuram 1912 1913 1914 ba 1915 mhm. loolu yëpp mu nekk si ron ay waajuram di leen liggéeyal waaye si ndi si ndigalu Cheikh Ahmadou Bamba di bàggante diggante sëñ bi waajur bi sëñ bi waajur bi nga xam ne day liggéeyal waajur bi mm. waaye mu ngi koy liggéey si ndigalu Cheikh Ahmadou ba nga xam ne sa waajuram lay liggéeyal waaye Cheikh Ahmadou Bamba lay liggéeyal si waajuram dëgg la mooy lu Cheikh Mamadou Ngaari wax mu tollook ñetti at yi nga xam ne maam Cheikh Ibra Fall moom la tarbiyu Serigne Touba mm. Cheikh Ibra Fall daal di fa jugee waaye loolu yëpp ànd ak loolu yëpp mu nekk soroon waajuram di ko liggéeyal gàmm bu jotaan day jugee jooka nekk si goxi Gambia jugee fa ñëw Jurbel di gàmm si mm. bu daan day dox distance bu sori nga xam ne ay kilomètres yu bëri la mu ànd ak rakkam ba sëriñ Babacar Fall ànd ak mbooloo mi ñu ñëw fekk sëriñ Touba Jurbel ñu gàmm ba ba set ñu takkuwaat wutiwaat jookaa ku nekk xamoon na jamono boobu waruwaay yombutoon mm. ñaari waruwaay moo amoon muy fas ak mbaam sëriñ Amar Fall pas-pas la amoon pas-pas boobu moo taxoon muy jugee jookaa di jugee jookaa ba Jurbel ñëw di dundal guddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mm. si ñetti at yooyu mu nekk si si liggéeyal waajuram nga xam ne guddeeg bëccëg amut benn waxtu wu noppalu di jàppale waajuram si njàngale mi di ko jàppale si tool yi di ko jàppale si liggéey bi waaye di ko jàppale si njaboot gi. Hmm. si loolu la Cheikh Omar Fall nekk diir bu yàgg ba 1915 waajuram wi woo mbooloo mi yëpp ñu ñëw mu sant ko mu sant ko gërëm ko si kanam mbooloo mi yëpp ngir jël leen témoin ba pare bind ab leetar. boole kaak moom jox ko Cheikh Omar ne ko boo àggee nga joxal ma ko sëriñ Touba. leetar boobu di wane ngërëm li nga xam ne waajuram wi ngërëm na ko ko. Hmm. te Serigne bi dana ko woon sa waajur bu la gërëmee gërëm naa la. Hmm. ba Cheikh Omar Fall andee leetar bi ànd ak mbooloo mi si la ko sëriñ bi seexal bañ gàmmoo ba suba ga sëriñ Serigne Touba woo ko. Hmm. ne ana Omar mu ne ko maa ngi nii. mu ne ko fa ngay jugee sori na di Gàmbi te yoon wi métti na. léegi man am nga ndigalul gàmmu yaag sa njaboot fa ngeen dëkk mii lu jafe jafe jafe jërëjëf sëriñ Babacar yaakaar naa ne waxtaan wi neex na lool eh, te sëñ Moustapha war naa jël kàddu te li des si waxtu bi bariwut kon bu ko defee damay joxal kàddu gi sëñ Moustapha boo ko defee mu résumé nu mbooleem li nga xam ne jot na fee jaar rek dolli ci ay kàddu su ko defee sëñ eh, Mouhamed moo nuy tëjal jataay bi ci xasida ndax li ñu desee ci simbali bariwut waaw jërëjëf sëriñ Babacar jërëjëf Mouhamad Ngaari waxtaan wi am na solo lool xanaa di sof rek comme Babacar li wax sëñ Touba pas-pasam sëñ Omar Fall pas-pasam moo ko may lim am ci sëriñ Touba ku amoon ak taalibi la ku amoon ak dogu la ci jaamu yàlla ak liggéeyal sëriñ bi bi ko sëriñ bi joxee ndigal li mu dem ci waajuram ba liggéeyal ko ba mu gërëm ko ba mu ñëwee sëriñ bi jox ko la nga xam ne moom lay jox gaa yu baax yi ko mbooloo mm-hmm. mu delluwaat ca Saalum di fa nekk di fa jaamu yàlla di gindi nit ñi mm-hmm. ba yàlla dogal sëriñ bi génn jamono mu yeesalaat mm-hmm. ak laxasaayam jébbalu ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi yàlla dogalee Cheikh Mouhamadou Moustapha wàccub liggéey mu soog a yeesalaat ab jébbaloom ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Mouhamadou Bachir kon loola day wane ne murit yëpp bi fi sëñ Touba bayee ko dañoo ñëwoon jébbalu ci Cheikh Mouhamadou Moustapha pour yoon wi doon wenn pour ñëpp nekk benn bi yàlla dogalee loolu ca 1945 euh, mu yeesaluwaat Cheikh Mouhamadou Bachir delluwaat Saalum nag nekk fa di fa jaamu yàlla nekk fa jiite mbooloo ma hmm. bi yàlla dogalee nag ñu sanc Touba Fall 1939 hmm. hmm. ca lañ commencé gàmmu ca Touba Fall kon Touba Fall léegi ñu ngi ci 89 ans bañ fa commencé gàmmu 111e e édition bi mooy ren 22 ans lañ gàmmu lu jiitu Touba Fall Touba Fall ñu ngi fa commencé gàmmu 111e e édition ñu ngi fa commencé gàmmu 1939 ndigal li sëñ Mouhamadul Muntaxa yeesal ko mm-hmm. muy ren ji mm-hmm. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom may ñu fekkee ko ñu ngi ciy woo ñëpp di gërëm di di woo mbooleem koo xam ne ñu ngi jëflante ak yow eh. ñu ngi lay woo ci bés bi jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa kon xam naa da nga may joxal kàddu gi sëñ Mouhamed sëñ Moustapha kaddu yi rafet na baax bu ko defee moom moo ñuy tëjal jataay bi eh, ci njàngum xasida ndax yaakaar naa li ñu cere la woon ci waxtu wi eh, matale na waaye bu ko defee sëñ Mouhamed nga tëjal ñu jataay bi ak xasida sëñ Mouhamed bismillah له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد له خطابي حامدا وينجد على الذي به الجنان أقصد habli kitaabaka wa sux maa yuxlidu bisirayali yaa akraman awaxidoon inna kitaaban jaabihi muhammadoo salla alayhi bisalaami samadoo jaabi muhammad sallallahu alayhi bisalaami samadun lana bihin xaada hudan warasado bi ala rabbil wara nahtamidu xaada lana alquranu ma la najidu bi xayrihi nixmal kitaabul afyadu diinun siwa islaamihi laa yuhmado tabaarakallah indal ilaahi wa bi nu jaddido jërëjëf sëriñ Mohamed noo ngi lay jaajëfal bu baax a baax kon sëñ Babacar nga liiral nu programme bi rek ci lu tolloog weer seconde rek ndax waxtu wi jeex na tàkk waaye bu ko defee nga liiral ñu programme bi nu muy tëddee ci bés bi rek incha allah jërëjëf programme bi nag moom nii rek lay demee buñ xëyee 9h pile. Mm. la ñu commencé programme bi. Mm. nuñ koy ubbee nag mooy jàng alquranul karim. Mm. lu ko dalee 9 ba 1h pile muy 13 bu ko defee bu buñ paree si lool danañ walbatiku dem si kër yi def yëfi ñangeen <laughs> ba pare ñëwaat 16h pile. Euh. si conférence yi nga xam ne sëti si ñoo koy def. Euh. mi Serigne Makhtar Seck. ak Serigne Mohamed Ngari mii toog. Mm-hmm. bu ko defee 19 heures pile cérémonie officielle bi commencé buñ paree ñu waat ci kër yi. 23 heures 30 ñu ñëwaat. ba 1 ba ba minuit 15 ak jàngkatu xasida bu ñuy wax Abdoulaye Dia dëgg fee dëkk fee sa dàkk sàmm. minuit boobu noon ba 1 heure 45 ñu amal conférence bu mag borom xam-xam bu mag di ko def mi Abdoulaye Sané bu Touba. 1 heure 45 ba 2 heures 45. ñu dellu siwaat si njàngum xasida mi ak Serigne Babacar Fall nekk doomi dëkk bi 2 heures 45 ba 4 heures ñu continuer si njàngum xasida mi ak sëriñ Mouhamed Seck mi toog nekk doomi Touba Fall bu 4 heures jotee ñu continuer jàngum xasida bi tey ak jàngkat bu mag boo xam ne mu ngi dëkk Kaolack ñëpp xam ko muy Serigne Mor Thiam moom mooy fanaanoo lu des si guddi gi ba ba set bu ko defee Serigne Malick Khalifa ñaanal mbooloo mi mm. yeewi leen ba mm. déwén tabarakallah jërëjëf sëriñ Babacar programme bi am na solo bu baax a baax noo ngi lay jaajëfal bu baax kon mbokk yi yaakaar naa loolu moo nekkoon suñu spécial plateau bi nga xamante ne ji mooy cent onzième e édition mooy gàmmu Touba Fall nga xam ne ñu ngi ko defee foofee ca Touba Fall ci Saloum njabootu Cheikh Omar Fall gi ko def sëñ Malick euh, xalifa bi nuy ñaan suñ borom yàggal ko fi bu baax te wéral ko ñu àndan ko tey nag ak lenn ci njaboot gi sëñ Moustapha sëñ Mouhamadou ngaari sëñ Babacar ak sëñ Mouhamadou sekk nuy jox ñëpp dig daje foofee ca Touba Fall ca saalum di bisub gàmm incha allah di ziare ñun doon topp ñëpp di wax wa axiru daawaana an alhamdulillahi wasalaamu aleykum aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.